na solo parce que ñi nga supporter moom mooy euh, moom mooy bousser jour moom mooy mm. yëngal jour nee naa tey mun naa wax tamit final bi mm. sentir ñu sax ne Algérie ñoo ñu ëppoon mm. yàlla xam na ko très bien ah loolu moom seen mérite la Mayassine, le dernier mot euh, euh, de la Cannes, pour aller aussi, il faut passer par ces éliminatoires. Je pense qu'il y a la, Guinée-Bissau, le Swaziland et euh, Congo-Braza. le travail reprend quand je pense que euh, avec l'entraîneur, on va commencer à travailler sur le bilan technique. Mm -hmm. Je pense que c'est important de partager les entraîneurs sénégalais. Quand même cette canne que nous effectuer. Euh, ensuite, on donnera peut-être un peu de repos également à l'entraîneur. Je pense qu'à partir du mois de septembre, le travail va commencer. Déjà, euh, nous sommes en train de collecter les données sur nos adversaires, mm -hmm. euh, tels que la Guinée-Bissau, le Congo et Swaziland, mm -hmm. pour avoir en fait des vidéos sur cette équipe-là, pour commencer à travailler. Et après maintenant, euh, je pense qu'au mois d'octobre, novembre, Euh, nous avons déjà un match à jouer euh, la première journée mhm. et après les deux journées ce seront effectivement au mois de l'année en 2020 mhm. mais je pense qu'il est important quand même qu'on se prépare bien mhm. pour les éliminatoires et ça nous permettra également aussi de continuer à travailler et de pouvoir polir davantage effectivement notre football. Mhm. Je pense que c'est important. Tout à fait. Mhm. Très bien. Merci Mayacine. Alors Cheikhou pour terminer dañu wax waxu football ça fait une saison très très longue yàgg na euh, depuis septembre là on est en juillet donc euh, saison bi metti woon na éprouvante na léegi vacances yi est-ce que seen club yi quand may nañ leen un parce que maa ngi dégg ay 10 jours 15 jours. 10 jours loolu ngeen am 10 jours c'est court waaw parce que gars yi ñu ngi commencé premier match bi c'est le c'est le neuf quoi le neuf août euh, déjà waaw. d' accord donc ñëw na ba pare. donc da ngeen di dem def hivernal tout de suite. non def yaakaar def hivernal donc ñi nekkoon di def hivernal dañuy ñëw benn une semaine rek ñoom kii groupe quoi parce que après saison dafa long ñu defee hivernal rek donc baaxul mun nañ si mun wala mun nañ claquer quoi. donc gars yi dañuy rek ñu gérer rek. ok sanction deux semaines dix jours de vacances. waaw waaw genre genre yooyu la rek mais je pense que tey balaa nga xalaat tellu moom essayer au moins savourer savourer avec avec la famille avec les parents. parce ñëpp tam tey Euh, sonnoon nañ si période kan bi. Mm. parce que ay moment de stress la woon. ay moment de tension ay moment yoo xam ne émotion yi dafay jug. Mm-hmm. et je pense que tey c' le moment tey euh, ñu jël benn une minute bon baal ma def comme. comme waa deuxième gaynde ko mbëri man aussi ma sant. Mm-hmm. donc maa ngi sant euh, fi ma dëkk d' abord fi may yeewoo chaque jour muy waa Jàmmalaay. Mm-hmm. maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm Jàmmalaay HLM Djily Mbaye Nord Foire. waa parcelle aw ma seen fay di nuyu sama parce que man euh, jolof jolof laa et je suis très très fier de l'être donc sama mbokk jolof jolof yëpp maa ngi leen di nuyu di leen sant di nuyu mm. sama xarit yu ma àndal mm-hmm. samay frère Ali Sangoulé Moussa ak Doudou maa ngi leen di di remercier bu baax. tout à fait Merci. alors dama bëgg ñu gis. waaw ak soxna euh, si du ma ko fàtte soxna si soxna si moom mention spéciale. bravo Mayacine papa maman la famille tout le monde. tout le monde alors ñenn euh, bu ngeen ñëwee seen gox yi dañ leen teertu donc en plus de l' accueil général ku ci nekk dem nga sa koñ gars yi ñëw xam nga teg accueillir leen te ci ci ah? waaw waaw a waaw waaw gis ko gis les images je pense que Cheikh tout à l'heure était à Xaar a yaa Pape Aline voilà Pa Abou nag moom fecc yu yi nga xam ne moom euh, bëgg ngeen xool ko nii tax moom moom dafa accompagner <laughs> en cachet, non En cachet, là. En plus d'être un euh, bon footballeur, tu es un bon danseur. Euh, macha allah. yàlla moo koy àttee. waaw man dama dëkk gox boo xamante ne nii euh, euh, dafa riche. Mm. dafa riche si lépp. Mm. côté football côté basket sport côté artiste côté way côté tout. Mm. donc Pikine moom nii la mel quoi. et avant ça may nekk. athlète professionnel. Mhm. Euh, dama nekkoon supporter damay revenir un petit peu di masawu ci wàllu douzième gaynde mhm. ak euh, ñi nga xamante ne gunge woon nañu aussi quoi. Mhm. nekkoon naa supporter dama daan Pikine danaan joué AS Pikine danaan joué ma toog Pikine ba Ndar Casamance fépp. Mm. donc euh, ñeema ñee di tëgg xam nañ li may wax. Mm. donc euh, ça fait que euh, dama leen di masaw coono quoi. waaw <laughs> mais Pikine nag aw ma seen fay parce que c'est la première fois ñu am. benn joueur bu nekk bu représenté équipe bu nekk équipe nationale. Mm. donc dama leen di wax gàcce ngaalaama. di kontaan si ñoom. ok yii moom Cheikh moom ko jàngal. <laughs> <laughs> chaque chaque guddi balaa ñuy tëdd mu woo ma ne ma acca. nii ngay def ak nii. jàng bi mokk na. jàng yi mokk na. alors Crépin yow aussi vacances yi euh, xam naa li ci des bëreetul mais di nga ressourcé wu delluwaat un peu sa dëkk Ziguinchor c'est à cette famille bi c'est l'occasion aussi nga nga remercier sa sa gars yi. oui c'est vrai que balaa may commencer damay njëkk a remercier douzième gaynde bi. Mhm. di leen wax vraiment merci parce que tey def ngeen liggéey boo xam ne ñun. ñun mi ku nekk sentir na seen seen présence Égypte. Mm-hmm. donc voilà ñun kontaan nañ trop si yéen et puis la ñu am ñun ngeen am aussi. Mm-hmm. donc euh, ñun ñëpp ñooy Sénégal donc comme ni nga ko waxee vacances yi mu ngi nii euh, bariwul comme ni ko gars yi waxee ay 10 jours la quinze jours mais xam naa ni fu mu nekk nii moom mu waajal waajal si ngeen soxlaay def nii et euh, dem gis famille bi gis gars yi aussi sonnoon nañ trop euh, pendant période kan bi chaque fois may gis ñu may yónnee ay vidéo mm-hmm. vraiment je pense que yoon la tey ma dellu foofu dem euh, ressourcer wu et puis mm-hmm. remercier leen aussi si taawaay bi. tout à fait alors Cheikhou yow tamit nee nga remercier bu aca ñaari jabar yi lay sant. <laughs> non c'est normal c'est normal ma dégg nga dama def ni mu bëri waaw ginnaaw ma sant yàlla ñu ngi si yéen a ngi. maa ngi sant aw léegi ñaareel. sant sant sama yaay sant sama yaay bu baax sant sama papa. waaw Viviane Diatta di ko ziar bu baax di ko remercier bu baax a baax a baax. waaw sama papa aussi di ko remercier di ko ñaanal. Mhm. comme d'habitude rek yàlla na ko yàlla may wër. di remercier aussi waa xar yàlla grand yëpp. Mhm. waa Kër Massar. waa Kabrousse waa Pire mbaayi ba kenn dina remercier bu baax a baax a baax a baax aussi comme na ko waxee waaw may remercier aussi sama ma wax euh, euh, on vous remercie je remercie Cheikhou et Papa Lune Pa Boué Crépin de nous de nous avoir euh, accompagné sur ce plateau spécial ki ngeen gis nag muy fecc normalement waroon na ñëw mais foog naa dafa xaw am ay ay teq-teq muy muy muy <laughs> gànn géey moom <laughs> tamit ci ñu gën a mën a mën ci équipe bi la bokk donc euh, voilà di remercier aussi euh, suñu équipe technique yi nga xam ne ñoom la ñu nekkaloon depuis si ngoon ñoom Cissé suñu directeur Ndiaga ak ñëpp ñi nga xam ne jàpp nañ si liggéey bi caméraman yi